asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziar bu baax di dëkk ziar bi Cheikh Ahmadul Muntaqa ñaan suñu borom subhanahu wa taala yokk aw fanam lool tamay ko ak wér waaye di ziar bu baax nag Serigne Mor Fati xalifa maam Cheikh Anta di ko ñaan a gudd fan ak ak wér ziar Serigne Jiil Abdul Xaadir xalifa Cheikh Abdul Maamoun ak mboolem njabootu Serigne Gaawaan gi yëpp Eh, mel nag ndigal jibatina fa nga xam ni fa la baaxoo saa su nekk ndax ku nekk xam na ni njabootu maam Cheikh Anta seen lépp da nga koo dëgmal jëmee ko ci liggéeyal Serigne Touba comme na ko Serigne Gaawaan daan defee moo tax nag Cheikh Mamadou Mountakha mi nga xam fi nekk nekkal fi Serigne Touba ñu koy ñaanal ab jotaayam yàgg lool yeesalaat nag ndigal li nga xam ne mu bàyyikoon ci ndigal loolee di dox ba képp koo xamante ni moo fi nekkal Serigne Touba di koy yeesal ndigal loolu nag moo yeesaat tey di màggalu Daaru Salaam ñu fas yéene ko amal nag incha allah talaata la 23 juillet 2019 waaye da am waajtaay wu am solo woo xamante ni at mu jot sëdi sëñ gaawaani dañ ko ci amal ngir conférence bi nga xam ni dañ koy def ngir séentoo ko bis bi loolu nag ginnaaw bi nga xam ne sëriñ joxe na ci ndigal njaboot gi di ci dox di ci woote ñu fas yéene nag yaatal ko nag xam la ni maam Cheikh Anta ku ne xam na ni digganteem ak mboolem ñi bokkaloon kippaaru sëriñ Tuubaa taxoon na lool moo tax ay sëtam itam xalaat ni lépp lu ñuy def ci dëkku maam Cheikh Anta bi di ko defal maam Cheikh war nañ koo woote yaatal ko ci ndigal ginnaaw bi ñu ci amee nag seen ndigalul kilifa yi nga xamante ni ñoo fi nekk tey te nekk jiite toolu si gaawaan bi di ci liggéeyal Serigne Touba moo tax nag ñu ànd ak jëmm yi ngeen gis ñoom ñëpp nag di ay njabootu Serigne Gaawaan muy suñu sang su tedd si toog waaye itam soxna yu tedd yi nga xam ne ñoom la ñu seqal bi kon su ko defee rek ngir ñu bañ a guddal dañuy jox kàddu gi soxna Baali Mbàkke moom Serigne As Gédé ñëw ci woote boobu nga xam ne moom la ñu fas yéene woo mbooleem jullit yi mbokki taalibe yi waaye bu daanee dañ jox Adja Ndey Jóob moom itam kàddu gi moom itam bu daanee ñu jox soxna Jeecuun ñëpp yam jëm ci woote rek ngir waajtaayu conférence bu am solo boobu nga xam ne war naa am dimanche le 21 juillet 2019 fii ci Daaru Salaam ansbillahi mina seytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim yéen mbokki jullit yi mbokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu te di leen siyaat di leen baalu àq te di leen woon nag conférence bii ñuy def ci Daaru Salaam te sëti maam Seex yi di ko woote ñu ngi leen di woo yéen ñëpp képp ki ci maam Seex ak noo ci satoo ñu ngi lay woo ñun ñëpp ñu teew fi dimanche le 21 ñu ngi leen di woo yéen ñëpp seeti sëñ yëpp ak taalibe yëpp nag ñëpp lañ woo ak njaboot gi bàyyiwuñ kenn. di woo nag buntu kër sëñ Tuubaa yëpp li ko tàmbalee kër soxna Fadja ba ci kër soxna May waaw ñu ngi woo ñëpp bàyyiwuñ kenn di tàmbalee kër sëñ Mourou Moustapha ba ci kër Cheikh Mouhamadou woo ñëpp bàyyiwuñ kenn di di jigéen woo nañ ñëpp woo taalibe yëpp woo jullit yëpp ci conférence bi sët yi def ci pencum Daaru Salaam di wax nag ci kàddu ñun seex si ñi nga xam ne ñoo àndoon ak maam Seex di ko tàmbalee ci sëriñ Mor Faty ture màddina ak mbokkam yu seexam yëpp ak ba ci ki gën tuuti ci seex yi tuuti sax amu ci waaye ba ci ki mujj kon ñu baaxoo conférence bi at mu jot ñu am seex buñ ko dara jaale defe naa ne ñu ngi ko tàmbalee woon ci alaaji Mayoro Fall seex maam Seex Ibrahima Fall lañ njëkk a tudde teg ci alaaji Mayoro Fall ak seex yiñ ko tudde yëpp teg ci sëñ Mor Faati Touré tudde nañ ko defe naa sëñ Ibrahima ja moom it tudde nañ ko ren ji ñu tudde ko ku ñu wax alxaaji Ahmadou Ndiaye Diop daaru xaddim ren ji moom moom turandoo bi te fas la ñeene bala ñoo bàyyi buntu kër yi àndoon ak maam seexante yëpp danañ daj loolu lañ ci jublu kon nag ñi ngi woo seex sépp bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu itam li ñu bokkal yëf yi ñuy suñuy jëwriñ muy uh, ñu jiite liggéey bi nga xam ne sëriñ Cheikh Anta Mbacke moo ko yëkkat teg ko ci seen loxo sëriñ Xaadim Sali ak sëriñ Cheikh ak sëriñ Cheikhouna Mbacke ak mbooleem sët yu góor yi ñu àndal sët yaa nga ne toog itam ñoom ak sëriñ seex Anta Samb ak sëriñ Fallou Galas si la yi nga xam ne mooy def appel bi bàyyiwuñu kenn ñi ngi woo ñëpp gaawaan ak ñëpp ñi ngi leen di woo ci conférence bii ñuy waajal ndax defe naa ne at mu jot day baax waaye jàpp nañ ne ren ji day gën a baax ak Touba ak ñëpp bàyyiwuñu kenn ñu ngi woo ñëpp di ñaan nag yàlla nañ ca sa borom yóbboo jàmm ma war a nekk dimanche la 21 ñaar fukki fan ak benn bu ñu ne ginnaaw suba la màggal kon nag ñu ngi ciy woo ñëpp bàyyiwuñu kenn seex buñ ko tuddee nag at mu jot dañuy defe ne moo dàq kon nag ñi nga xamal ne ren jii Alaaji Mun Njaay Jóob lañ ko tudde ñu ngi leen di séentu te di leen teertu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi di woote nag woote boo xam ni sët yi toog di sëti sëñ Modou Mamoun sëti borom gaawaan sëti sëñ Afe baar fa kàll macha allah sët yëpp rek yàlla nañ yokkute bañ a wàññeeku ñu ngi woote seen màggal gii di ngan ga borom ngan gi nga xam ni ba mu ganalee ba noppi kenn ganalee tun mbaa ku ganale ko waaj muy Cheikh Sidil Makhtar borom dërëm ak ngërëm ñu ko waajal màggalam gii waajtaay wi ñu koy waaj nag sët yi toog nii ñoom ñooy def seen appel sax si conférence bi ñu jiital xam ne mooy jiitu màggal gi te tudde ko seex si te ren jii turandoo bi macha allah ñëpp bëkki di sëriñ mën njaay jóob mu baax ma moom maam seex ma anta ñoo ngi ñaan yàlla dugg ci ci jàmm génn ci ci jàmm màggal gu laa bu ma sa ñëw neex yàlla na ci gii dàq noo ngi woote bu baax a baax nag woote bi soxna baale Baali As woote na ko wax ji rafet na tubaarkàlla macha allah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki téléspectateurs yi jàkkaarloog ñu du ñu seetaan ginnaaw bu ñu fobee sunu nuyoo sof ko ci nuyoo sang su baax si nga xam ne ñoo jiitu eh, di leen fàttaliwaat ci ndigalul Serigne Mor faati waaye ci njiitu sëriñ Jiili ak Serigne Abo Rakam waaye ci coordination bu Serigne Cheikh Anta Mbacké mi nga xam ne moo jiite lépp lu jëm ci wàllu organisation màggal gi. ànd ko ak comité d'organisation bi ak sët yi ak soppe yëpp nag ngir waajal màggalu Daaru Salaam conférence bii nga xam ne at mu jot danañ ko baaxoo di ko amal fii ci penc mi di ko gàttandoo màggal gi ndax xam ngeen ne ñibbi si sëriñ tubaa la jóge jóge ci géej gi euh, muy bis bi nga xam ne ci la Serigne Touba liggéeyale woon yàlla liggéeyam bu rëy boobu ba liggéey bi àgg mu jëm si waat ci rakkam ju tedd ji nga xam ne ma ngi ko fekk ci dëkk bi mu njëkk am mu di Daaru lahu taala rujuhi min idaaya ila daarissalaami allati tubna bi tajdiidi sun borom mi nga xam ne moo dogaloon samak dem dogalaat na samak del tàggoo ci noon yi jëmaat ci sama kër ga ñuy wax daaru salaam danaa fa dem yeesalaat ko bis boobu la maam Cheikh Anta wax ne bis bii lay woote fii daaru salaam waa ju fi ñëw buy dem am xayra maraam bis boobu nag moom lañ fa yéenee gàttandoo ak benn conférence bu mag boo xam ne dimanche lay doon war a nekk ñaar fukki fan ak benn ci weer wi sëti sëriñ Modou Mamoun yi di ko amal moo tax ñu di ko yëgal nag mbooleem buntu kër yi maam Cheikh yi la ko tàmbalee ci kër alaaji sëriñ Takko jaar ci kër sëriñ Ibra Ndar jaar ci kër sëriñ Ibra Sucaam jaar ci kër euh, sëriñ Saam jaam ci jaar ci kër sëñ Daam jaar ci kër sëriñ Moustapha Caytu jaar ci kër sëriñ Abdou Góora jaar ci kër sëriñ Cheikh Coro bàyyiwuñ benn buntu kër buntu kër yëpp ñu ngi leen koy yëgal di ko yëgal it mbooleem buntu kër yi seex yi la ko tàmbalee ci kër alaaji Mor Faati Touré noonu mu ko waxee ak mbooleem seex yi nga xam ne Eh, Serigne tubaa moo leen boole woon ak maam Cheikh Anta kere ba mu koy jox Daaru Salaam rafaatale ko juróom-ñeent fukki taalibe ak juróom-ñeent yi fi njëkk a jaayante ñooñe ku ci sa maam bokk rek ñu ngi lay woo ci conférence bi di ko yëgal nag mbooleem sëti Serigne Touba yi ndax bis bi bisub Serigne Touba la kon la ko tàmbalee ci buntu kër Cheikh Mahamadul Moustapha ba ñëw ci buntu kër Cheikh Mahamadou Mourtada la ko tàmbalee ci buntu kër Soxna Fatidia ba ñëw ci buntu kër Soxna Maymuna bàyyiwun benn buntu kër waaye seexi Serigne Touba yi nag la ko tàmbalee ci kër maam Cheikh Rahima Fall jaar ci kër sëriñ bu soobee waaye nag jaar ci kër sëriñ Ibrahima Mbacke Mbacke Kajoor jaar ci kër sëriñ Ibrahima Sarr Njaañ mi nga xam ne kon nattabliwul diggante Baye Serigne Sarr ak sëñ Modou Mamoun jaar ci kër sëñ Massamba Diop Sam kër sëñ Dame Abdourahmane Lo kër sëñ Daaru Assane Ndiaye mbooleem buntu kër yi seex yëpp nag ñi ngi leen di xamal conférence boobu di ci séntu ñëpp nag di ñaan képp koo xam ne teew nga ci bis boobu yàlla mi nga xam ne moo mën a faj aajo yàlla na yàlla faj sa aajo adduna ak alaxira yalla na la yàlla boole ci sërite bi nga xam ne moom la Serigne Touba waxoon ne ijhal salamatan taduumu ya salaam liya walin iyaali fi daari salaam wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu